jaay ma gaaw damaa yàkkamti lii la la nii. hey kan nga yuug boobu yuuguwaatee ma tegal seconde dem leen ndox léegi léegi léegi. ak yow laa wax. jaay ma jaay ma nga nekk sa téléphone bi nii. kam yow dégg nga réew man sa morom baay la yow sa konkaay bii nga mel ni tamaate nga yor parasol mel ni ku gistoo wala naaj lan ngay taxaw di yor parasol. eh dama ne may ma sama jàmm laa wax te nga jaay ma damaa yàkkamti balaa tikki réaction yi di jeex. kan mooy Yaya yoog yaa soow ci kaj ngay wax fii naan ma yaayaa soow kam yàlla ngi dem ñu leen tikki bii jeex na simple jeex na via bii jeex na doo am Poulo yow xamoo yaayaa comédien yow yow kam naa yaayaa comédien kay waaye yaayaa soow kay kamul yaayaa santul soow kam mooy yaayaa soow waaw yaayaa comédien mooy def show le 24 décembre vendredi bii nii Fass Mbao kam kan iya, yaa comédien du moy borom boy borom rasa tilim yoy kam dugg sang dugg ki du ci def samp tam bu mu rek wala du ko <laughs> ah boy boobul kam kam nak voilà mom le pula kam laajuma la dangaa sobar soo ko telon wax dina jeun tikki mu dem seetaan ñam ma yóbbu laaleel ko soom nan yow rew mi fum tole ñi ñi sogale retan yow lo yeglu lu yow la yow ku bon he talib jigéen kan. lay jaayee wax mu ma dem jeun yow mbaa ma nga gise fermé lay doon nag de so gaawul doo am ticket. kam woppam naam naa ci munoo bàyyi canal yow laa la laaj ma noppi woppam. he wax ma fu ñuy jaayee ticket yi fan nga ko jëndee. waaye yow doo ma jaay ba pare sax nga doon wax waxu dem. maa ba jaay ma kon damay tardé du am ticket dégg naa léegi mu jeex may ma ma tëj damay dem jënd ticket balaa gise bee fermé balaa fermé bi di gise. kàq taay soo boobu du man damaa gëj reetaan am stérilisation. hey soo buggee gis poul bët ak bët nga gis ko mu taxaw ñëwal si Yaya Sow bi di nga gis ma taxaw